ahousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuba ñoo ngi siyaare mbokki jullit yi di siyaare mbokki taalibe yi di si kilifa gi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te may ko wér-gu-yaram ak sunu jëwriñ Serigne Hamsatu Jaxate ak mboolem njabootu Serigne bi kon tey ñoo ngi fii ci Sarcelles espace Venise ci màggalu xasida yi nga xam ne mooy am fii ci Paris ñu toll ci neuvième édition ñu fas yéene dalal sunu jëwriñ kilifa sunuy waajur jóge ba itali jiite kuréeli xasida yi nekk itali ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw ci bis bi ànd kook ñun ci liggéey bi kon ñu fas yéene dalal eh, Serigne Mbacke Mbodj di kenn ci sunuy jëwriñ di sunuy waajur mu présenté mbooloo mi nga xam ne ñoo jóge ba Italie te jiite fa liggéey bi foofu bismillah sëriñ Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki bi ginnaaw biñ leen nuyoo ñu ngi leen di ziare di leen bal wax tey bal ñëpp àq te ñaan suñu kaddu yi yàlla fekk ñëpp ci jàmm tey nag ñu bàyyi ko itali ñëw ci bis bii nga xam ne nii bokki taalibe yi féete fii ci Paris dañ ko woote ak France ñu ànd ak ko ak Serigne Sam Diop mi nga xam ne nii moo jiite kuréelu xasida yi Italie yi ñu ànd ak Maam Dame Thiam bokk ci kuréelu Milan feggoo ak Serigne Yim Aaw mi nga xam ne nii moo jiite kuréelu xasida yi nekk ca Sénégal feggoo ak sëriñ Sam Diop mi nga xam ne nii moo jiite délégation bi nga xam ne nii ñoo bàyyi ko ak ci sama ndeyjoor ñi ngi ko ànd ak sëñ ma bàcc Thiam bàcc sëñ bàcc Ñang mi nga xam ne nii moom tam ci kuréelu Milan la nekk ak feggoo Serigne Saliou Seck mi nga xam ne nii ku ko xam-xam ko ci xasida yi ñu bokk pas-pas di ànd liggéey Serigne Touba yi nga xam ne nii fépp fu ñu koy woote bu nu solee suñu dàll mu jóg ànd ko ak ñoon kon ñun tamit ñuy jëkkatiwaat kàddu kii di ko delloo Serigne Sam Diop bi nga xam ne nii moo nekk ci bopp mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf Baye Mbacke ngi sant baax ci kàddu yi leer na. bisimilah kon ñu jox sunu jëwrin sunu kilifa sunu waajur di kenn ci liggéey Ahlu Xasida ñu koy wax Njëriñ Aaw jóge ba senegal dafa taxaw liggéey bu am solo lool ci ndaw ñi ak ci da yi di ci liggéey sëriñ bi. ñëw fii France ànd ak ñun liggéey bi ñu jox yi rek mu sànn ci ay kàddu soññee ak it gis-gisam ci liggéey bi ak taxawaay bi jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ñëpp di sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Khadim suñu yaakaar ci jataay bi nga xam ne teewoon nañ ko daaw. yàlla defal ñu tawféex ñu mën koo teewaat ren yàlla nañ ko yàgg teewe te mbokk yi nga xam ne yàlla dogal na liggéey bi tegu seen loxo di waa jaalubatul maraaxib ak mbooleem daara bu nekk France wala daayira ci biir France wala ci biti France ci diaspora bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax di nuyu suñu jëwriñ ji nga xam ne moo daaneel kàddoom léegi di Baye Sam Diop nga xam ne liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu xasida yi yàlla defal na ko ci tawféex ndax liggéey bi foofa la sosoo ca Italie di yaatu di yaatu ba daj àdduna ba tey suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko woote ca Touba loola nag mel na ni ab joxañ la ci la ñu nekk teg nañ ko ci yoon kon nañu gën a góorlu te gën koo waggar te gën koo fonk dafa am ñett yoo xam ne moo tënk suñu liggéey li ñu wax de Touba li abdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati xam ngeen ne xidma nag mooy liggéey liggéey nag liggéeyal sëriñ bi waaye liggéeyal sa bopp waaye liggéeyal say wayjur waaye liggéeyal say mbokki taalibe aw bi hubbi nit dañu war a sopp sëriñ bi waaye ñun ci suñu biir dañoo war a soppante bëggante jàppalante aw haddiyaati haddiya jooju ñu war a jox sëriñ bi it jàpp naa ne kenn ku ne ci ñun war ngaa xool mor sa mbokki taalibe yi nga àndal képp koo xam ne war nga koo jàppale war nga koo taxawu nga ànd moom ci liggéey boobu ñu xam ne nag liggéey bii du liggéey bu ndaw di am mbégte bu di barab boo xam ne ku xool jataay bi xam ne méngoo naag sëriñ bi fi mu teg xasaayit yi ak fi mu teg alxuraan di ñaanal mbokk taalibe yi ko jiite buñ tuddee sëñ xaadim si la di ñaanal mbokk yëpp waaye di xam le it ne liggéey bi ni ko Baye Sam waxee mooy liggéey bi nga xam ne liggéey bi sëñ Touba boo xam ne ab joxoñ la woon donga yi na ci di neb ne bi xamuñu woon ndax li ñuy def fan la jëm ak nu ko sëriñ bi gisee ñuy dox di dox ba mu yàgg ndax ku xool Italie boo xoolee ñu ngi ci vingtième édition wala vingt deuxième édition nga xam ne loolu yàgg na ku ci amoon doom boo ko yónnee mu dem bi ñu demee nag ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na yàlla dolli leeram toog xool liggéey bi liggéey bi mu rafetlu ko lool ci jataay ci toogaay ci jàngin ci yar ci teggin mu ne kaay leen defal ma bisu xasaayit fii ci Touba addina bi yëpp ku mënta ñëw Touba dëkk ba nga ne nga defe ko fa loola nag defe naa la mu xooloon ba tax mu gis ko ñun ñëpp war nañ koo waggar jàpp ko te biñ ñëwee fii ci bisu jaalibatu maraaxib bi gis nañ ko fi maanaam mbokk taalibe yi toogaay bi jekk na yar ak teggin na ci xasida yi suba ngoon amul waxtaan loolu nag kenn ku ne liggéey booy defit noonu nga ko war a jàppe kon ñu ngi ñaanal suñu kilifa yi jiital ci Cheikh Ahmadou Mountakha waaye bépp euh, kilifa goo xam ne yaa ngi ci yoon wi ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal la ni ko Baye Sam waxee nag euh, soññu xale yi mag ñi moom kenn sañu leen a soññu xanaa ñu la ñu ne nañ ca góorgóorlu wéy ci rek waaye suñu njaboot gi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi nañu gën a góorgóorluwaat rek te xam ne lii rek moo ñu fi dese ci liggéey ku xool sa ginnaaw gis sa morom moo xam ne mi ngi dem ci lu yàlla gërëmul ñu ñaanal ñoo ñëpp yàlla wëlbati leen ba ñu gën ànd liggéey bi ñu bañ koo woyofal ñu ngi santaat ñëpp di gërëm a ah, bu suñu kilifa waxee duñu mën a tegaat dara ciy waxam waaye dañu doon jéem rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah di xamal ñëpp it ne teew nañ fi teewal fi kuréelu xasida yi ne senegal yëpp wala Afrique yëpp waaye nag ca foofa ca njiital sëñ Amsatou Mbacké bu sëñ Souhaïbou waaye ci njiital sëñ Aliou Diop mu xaddimatul xidma ñu ànd liggéey boobu ak waa Sénégal yëpp ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp teewal fi it mbooloom Kanzul Moutadine bu Dakar jërëjëf jëf jërëjëf sunu waajur Baye Yérim kaddu yi am na solo lool noo ngi leen ci sant bu baax a baax kon mbokk yi ñoo ko déggandoo lii day wane rek liggéeyu sëriñ Touba bu Serigne bi nangu ndax li mu wax ne waliyahab bi kulli harfin minha jamaahatan xaadimatan wasunha ñaan sunu borom mbooloo moo xam ne nii ñoo koy liggéeyal ci téere bi te mu ñoŋal leen ku gis mbooloo mi rek xam ne it loolu sëriñ bi naan yaa rabbi jalil muridina maha fi hisnikal hasini wa samlaj maha ñaan yàlla boole murid yi ci sangewu leen ba ñu nekk benn dugg ci kaaraangeem googu nga gis suñu waajur yi nga xam ne nii ñoo jóge ba ci senegal ak Italie ñëw ànd ñun liggéey bi di ñu toqi loolu day firndeel rek bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa muy lim waxaat ne inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li mu tara ne waxante naag nasaraan yi ci seen territoire muy muy muy seen suuf te ko gis fi ñu koy defee nga ne mooy France sëriñ bi waxante feek nasaraan si te xat dëmbut loolu it day firndeel rek ne sëriñ Tuubaa moom lépp lu mu lu mu bëgg rek dana am lépp lu mu wax it danañ ci dox boo yegg ca ñoo ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu